revue de presse seen revue de presse ak Fall Damel nuyu naa ñëpp fii lay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay yi jabar ji lanu njëkk na jàpp ñuy wër jëkkër ja gisuñu ko ba yàgg jëkkër ja ñëw jébbal boppam yoon yéenekaay bii di sunu gaal 24 ne ginnaaw seet gu métti gi nu ko wër ci askanu sunu gaal ba mu jébbal boppam yoon moom Birame Souleye Diop mii di administrateuru parti Pastef yéenekaay bi ne le doyen des juges daal dina koy tàbbil placé ko sous mandat dépôt cey lii ma nga ca kosoba de jabar ja yëpp déedéet moom soxnaam si di Patricia wàllul régime du contrôle bi daal dina koy wàllul ndax tax na waral sabab mu ñibbi ca këram ba tey ka ñibbi ca këram bokk ca ñamu àndal di wóy ci turu Fatim Mbeng moom itam dem na ndax régime du contrôle judiciaire bi kon nag su Souleye Diop ci biir jabar ja ca biti ay waay tàmba ka nga xam ni moom la jabar jay toppee violence conjugale waaw mooy borom reeju neex ji ki bari woon jàmm lool ci élection présidentielle yi gi nu génn kooko Issa Sall lay wuyoo candidat ngu pur bi daf maa dóor fayuma defuma dara ni nemm mu continuer di ma dóor ba tey li tax mu yóbbu ko ci yoon moo di Issa Sall mii dafa xotti passeport am ak itam di ko def la nga xam ne moo di menace de mort <laughs> eh waay Samba kii li muy wax dara du ci dëgg ko yëkkati yooyu la kàddu di ndaw sii di patron borom salon Sweet booti gi nu taqale Ousmane Sonko te aji Sarr ni daa am lu ko taq te la ko taq loola Ousmane Sonko ko ko taqal la mu taq bu dee am na ndax Ousmane Sonko ko ko taqalam déet moom la mbir coow lu bari sa soo cekku na di ca wax ba maître la Diouf di ca wax dara amu ci ku wax loolu xanaa boroom salon bi moom mi boroom salon bi yéenekaay bi ne ba tey mu ne du dëgg ba ñu ko laajee ana lu dul dëgg mu ne ñaari weel yi Adji saal jiiñ Sonko bu le bi ak ba ca des benn benn benn amu ci moom mi la mbir nag njiital parti Pastef bi moom la mu foog te yaakaar ko moo di président Macky Sall ci jëmi boppam moo ne ci boppub complot complot bin ko comploteel moom Ousmane Sonko sama adversaire bi ma gën a bañ sax du ko comploteel du ma ko jiiñ lu lu ko comploteel ci ñàkk fayda yi kaddu tukkee ci njiitum réew mi président Macky Sall yëguma tinuma mbir mi nu mu demeek fa mu ameek loolu la yépp sama yoon nekku ca li ci am ba des daal moo di dana ko accusé te mbir mi am na procédure am na yeneen mbir yu nekk sama kanam yu ma tàl lu dul nekk fii naan damay comploté moom ba tey ci ay kàddoom ni mbir yi yoonu président nekku ci kon nag bu ko ci kenn dugal ñaanu jël dugal ca kaso ba di Guy Marius Sagna ak Assane ñoom jot nañoo yëkkati ay posé ñoom nag lay seen gis-gis ci mbir mi mooy jàpp gi nga xam ni moom leen leen jàpp gaa ñi leen jàpp teguñu ko fenn Guy Marius Sagna ak Assane Diouf ne ñoom li leen tax a jóg du leen lu dul défendre seen askan te xanaa défendre saw askan dañ la cee war a neexal waaye kenn warula cee jàpp ba tey yéenekaay bi nekkanu jàppaat di kele doon seen nga xam ni dana ko wër ba sonn soog ko ni niip ci démb ci talaata ji moom kàddu yamu yëkkati moo di nee na daa bëggoon a teg aw mouvement boo xam ne day jóg ngir contre président Macky Sall ci Sénégal Sénégal door seenu vaccin démb ci talaata bi vaccin yi nag li ko tax a jóg moo di xeex coronavirus gi yéenekaay bi ne waa kër docteur tàmbali na noo ñàkku kay nga ne ma ka njëkk a ñàkku du seen njiit di wóy ci turu Abdoulaye Diouf ñàkku na ak kan professeur Seydi ñàkku na ak kan ah borom ca dëgg-dëgg communicateur traditionnel bi El Hadji Mansour mbay ñàkku na kon daal ñàkku yi la askan wi gis ni moo fi mën a jëlee corona bi keneen ku taxaw ni mën na fee jële corona bi kooku Habib Diaban lay wuyoo ay taalibeem di ko dàkkantalee sauveur de l'humanité kooku ku mooy ki àndandoo ki gaayam dem tawaa fi foofee ca jumaay Tuuba te waa xidmatul xadim ni ko du ci dal moom Habib Diaban ca ay kàddoom mu ni Serigne Touba xaadim rasul dafa am leer gum ko bàyyeel ca jumaa ju mag ja mu waran koo dem jëli yéene kaay bi ne ca ay kàddoom mu ni googi la leer moo war wallu jamono leer ga mu doon jëli ba tey mu ni moo fi war a jëlee li nga xam ni moo di jikko yu bon yi nekk ci askan wi yéene kaay bi nee ci jamono jii ñuy àddoo moom ci jëmi boppam jàpp nan ko ba jàppale juróom ca ña nga xam ni moom la àndaloon fi mu toll nii ña nga leen denc ca prisongom njaar yëm delloo ñaari nit ci benn bis moo nar a am foofee ca Pikine tali bu bees di ñaari wëy dencante jëkkër ak jabar joo xam ne dañu leen a fekk ñu faatu ci seenum néeg yéenekaay bi ne waaja Mohamed Kamal Diouf lay wuyoo di jaay jën foofee ca marché Pikine soxnaam sa di wuyoo ca turu Aïda Faye ay waay waay waay waay yàlla na leen yàlla yërëm say laatiir bësal ma clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse ah alaaji alaaji dëkk bi toj na de cey aada euh, say say say dëkk bi toj na ndax lii moom kenn xamul lu mu doon moo tax def lu baax rekk am solo tet tet ñu fekk jëkkër ak jabar noonu ñu ne xàntan dem ci ci yàlla tet doy na de ah jëkkër ak jabar dem noonu tul ñi kay moom moom dañoo xamul lees ci wax ah moom kay doy na waar moom dëkk bi moom sëy dëkk bi doy na ah waaw ñoo xamante ni dañ leen a fekk jëkkër ak jabar seen biir nekk du hôpital du dara nu fekk leen nu faatu noonu kéemaan la de waaye Issa Sall dey Issa Sall dey moom it jabar jaa koy topp violence conjugale cey lii cey lii dëkk bi da jaaxal na ma njiit yi mu nuy toppee ñuy violence ci dem ci salon kii jabar jaa ngi koy toppee violence conjugale ay doo rek ay menace de mort rek ay xotti passeport lu ko fi jar bu dee am na lu ko fi jar loolu moo tax rek nga mën a takk nit ki ba mu neex la daal nga commencé di def moom yenn yi bu dee am na kéemaan ji daal mooy nañu fàttali lii yëpp yëpp teg ko ci suuf te ñàkku ji wax ji mooy askan wi nag ñàkku ji man loolu laa gis nan dem ñàkku ji segam Ablaye Diouf Sarr ñàkku na ah euh, keneen ak keneen ñàkku waa kër docteur ñàkku ah El Hadj Mansour Mbaye ñàkku nan nan nan Seydi Gassama ñàkku nan ñàkku ji rek ah, waaw nu muy def encore une fois nekkul loo xamante ne dañ koy forcer nit ñi forcer wuñ ko kenn ñi bëgg a ñàkk la ñuy ñàkk te ñàkk yi bu jàllee li ma leen ci waxoon démb laa leen waxaat tey bu jàllee mën nañoo ubbi li nga xamante ni moom mooy lépp luy activité ndax bu ñàkk yi jàllee euh, protection la kon léegi dañuy essayer rek fexe ñi nga xam ne ñoom la jot a dal ñu ñu ñu faj leen mu jeex waaye feeg ñàkk yi amul moom. chaque jour nga ne dégg nga dégg ñu ne am na nangami kaa nangami kaa nangami kaa nangami kaa nangami kaa chaque jour kon jàpp nañ ni peut-être ñàkk yi mën na ci dara ñàkk yi waaw loolu la ñu jàpp ni ñàkk yi mën na ci dara waa segam nag jàpp nañ ni ñàkk yi mën na ci dara ah sëy dañ ñàkku ji rek ah waaw du moo gën ndax dëkk bi dëgër na wax naa ko démb nee naa leen jaaykat yi ci seen jëmmi bopp sonn la ñu def. six heures ñu laal la neexul ñi doon liggéey six heures jëm kaw liggéeyatuñ restaurant yaa ngi wàññi seen personnel yi ñu doon liggéeyal ah dafa mitti ci ñenn rek la neex yëf yi ci ñeen rek la neex muy aawa yi te dina dem ak ñaareel yi mooy jabari soxna yi te dina dem ba àgg ci jamono joo xam dootul neex ci ñoom ndax yéen jëkkër yi duñu am lu ñu leen dundale te ko amul lu mu la dundale fu mu koy jëlee doy na waar daal doy na waar gaa yi ba suba ak jàmm salaam.